noo ngi am mbégte bu baax ci war a tàmbali gi ñuy tàmbali liggéey bu am solo bii ànd kook ay boroomi xam-xam te waxtaan wi lépp ñu tënk ko ci lu tax ma war a bokk ci tubaate kanam muy laaj boo xam ne kenn ku nekk ci ñun war nga koo laaj sa bopp waaye kenn ku nekk ci ñun war nga koo laaj sa mbokk lu tax ma war a bokk ci Touba kanam mooy temu waxtaan wi mbokk yi tedd yi ñu dendal te sëriñ Saliou Diakhaté war a modéré jataay bi ñoom ñoo war a amal waxtaan woo xam ne loolu lañ ci war a balloo docteur Khadim Bamba Diagne Soxna Gueye ak it euh, Moustapha Girassi bokkoon na ci ñi waroon a ñëw waaye ngant da koo dab ba mënta teew loolu nag mi ngi amee ci ron kilifteefu kilifay Touba ca kanam yi ni ma ko waxee léegi sëriñ Habib mi jëwriñ ji ak sëriñ Abdoulahat mi ko fi teewal ak ku mel ne sëriñ Abdoulahi Mbacke moom sëriñ Dame Atta sëriñ Moutala Mbacke moom sëriñ Fallou bu ma duggee ci lim gi euh, dana bari ñoo xam ne dinaa leen duma leen mën a lim kon noo ngi sant bu baax a baax di santaat sëriñ Touba bu baax ci tawféex ji nga xam ne defal nañu ko tawféex ji ñu suñu borom defal ci sëriñ bi ba ñu taktoo àndandoo di liggéey liggéey boo xam ne bu ñu yaakaar ngërëmal yàlla la te mooy liggéeyu Touba ca kanam ñoo ngi ciy sant Serigne Touba bu baax a baax di ci sant kilifa yi ñu àndal ñu ñuy teete ci liggéey bi waaye di ci sant mbokki taalibe yi ñu ko àndal yépp bu fekkee nag dañuy def ab présentation tënk bu gàtt ci Touba kanam lan mooy Touba kanam loolu day mel ne laaj la boo xam ne ñépp xam nañ ko du Touba kanam du lenn lu dul mbooloo moo xam ne rek dañoo toftalu sosu jokk ci mbooloo yi fi jiitu woon te sëriñ bi xàllal leen boppam ñu samp di liggéeyal sëriñ bi te yàlla rekk tax loolu mooy tubaate kanam Touba ca kanam mooy mbooloo moo xam ne dañoo jóg takktoo boole seeni doole seeni xel seeni xalaat ak seeni alal fas yéene koo liggéeyal Touba ca kanam buñ ne ñan ñooy Touba kanam nag mooy fa ab ku di murit rek wala képp ku bëgg lu baax yaa waay kanam Touba kanam kon mbooloo lañ moo xam ne sàkku ngërëmal suñu borom rek leen tax a jóg Touba ca kanam liggéeyal Serigne Touba rek ko tax a jóg loolu mooy Touba kanam Touba ca kanam nag dafay euh, kuréel goo xam ne dafa am lu mu génnee ci sëriñ bi may yi ko suñu borom may ci wet gu ne ba ci wetu économie wàllu développement jëmee am réew kanam. Touba ca kanam di ci misaal mu ama am solo moo xam ne xëy na bu waxtaan wi ubbi ko daañ ci gën a am lu leer bi mu juddoo nag doon ak kuréel nekk ci réew mu mel ne Sénégal nga xam ne réew la moo xam ne dafa am ay loi ak i règlement yu fi dox kon boo fi sampee kuréel gu toll ni Touba ca kanam faaw nga jëm ko yoonal loolu moo tax Touba ca kanam ci statut juridique mu doon ab association am statut association boo amee association kon dina am euh, bureau exécutif dina am comité directeur commité de direction boobu assemblée générale Touba Ca Kanam ñoo koy fal te mooy mbooloo mi comité directeur bi 51 membres ñoo koy composé bu ñu leen falee ba noppi ñoom ñooy fal bureau exécutif président secrétaire trésorier ak seeni adjoint waaye ñooy falaat nag commission yi nga xam ne ñoo ngànk liggéeyu Touba Ca Kanam toll ci fukki commission ak ñeent ñooñu dañoo wëlbatiku nekk ci ron kilifa yi sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Abibou mu nekk ci statut juridique bi fexe na ba sàmmonteeg doxalinu réew mi waaye wàccut benn yoon njàngaleem sëriñ bi wàccut benn yoon ni nga xam ne mooy doxinu murit ci pas-pas ak takku tey liggéeyal sëriñ bi te yàlla tax bi loolu amee nag ba kuréel gi taxaw dañoo daal di jànkoonte nag jàmmarloo ak lu mat ay jafe-jafe yu yuy toll ci juróom-ñeent wala juróom-ñett bari na waaye ci yooyu laa ci mën a xayma ginnaaw bi mu doonee kuréelu pas-pas jafe-jafe bi ñu njëkk a jànkonteel mooy ak nosu ñu koy wax défi organisationnel ndax mbooloo yi li leen di mën a jëme ca kanam mooy ñu nosu organisé wu bañ xam kan mooy kan ak kan mooy def lan nosu googu mooy li ma doon wax léegi ci wàllu tëralin wi nga xam ne moom la Touba Ca Kanam tëddee waaye ñu amaat beneen jafe-jafe bu ñu jàkkaar lool te mooy kuréel goo xam ne dafa jóg am pas-pasub ne dafa bëgg dajale ñaari millions yi nit weer wu dee kenn ku nekk ci ñoom joxe ñaari téeméer bu ko defee at mi dinañ ci ma dajale ñaar fukki milliards ak ñeent loolu ku nekk xam na ne laaj na communication bu rëy rëy laaj na fu nit mën a nekk loolu mu yëg ko leer ko waaye du ca yem duñ ca yem dañuy fexe ba jamono bu nekk ñu koy fàttali ngir ñaar téeméeram yooyu nga xam ne jaayante ne ko fas yéene ko ànd ak Touba ca kanam liggéeyale ko sëriñ bi ci Touba mu sax ci ci cadre communication boobu bokk na ci li tax ñu daje ci sees ngir jàpp nañ ne fii bu ñu fi jógee tey ba def waxtaan wi ba noppi ay cellules yu baree bari dinañu samp ci ndakaaru ñoo xam ne ña koy jiite dañuy ànd ak yi mbooloo di soññanteeg ñoom ñuy gën a jàpp ci liggéey Touba kanam bii ba àddi yañ ciy joxe jamono bu nekk ñu koy mën a dajale muy ñëw ñetteelu défi bi nga xam ne moom la Touba ca kanam jànkoonteeloon mooy collecte de fonds fexe ba dajale alal yi te loolu dafay lëkkaloo ak gestion bu transparente création de confiance Touba kanam bi mu doog ko juddu bokkoon na ci jafe-jafe yi gënoon a nekk jafe-jafeem ba tey jii mooy fexe ba li ñuy soxla par weer te mooy ñaari milliards nekk vingt-quatre milliards te boo ko waxee ñi nga xam ne ay économistes lañ ku mel na ñoom sëñ docteur mi docteur Khadim Bamba Diagne mën nañoo jàpp ne xàll wi ñu xàll day xàll wi yaatu sas wi ñu tobbi day sas wu rëy rëy neexut a bay waaye ñoom du leen jaaxal ndax ñoom ay taalibe lañ dañu xam ne du ñi ñuy xool ci Touba ca kanam ñooñu ñoo ñooy ñoo ñooy tax loolu mën a am déedéet day mbirum sëriñ Touba te sëriñ bi moom fu mu àgg ak lu mu am yitte ak pas-pas yitte ju kawe ak pas-pas ak dogu moo ko fa àggale kon ñaari milliards yi nga xam ne jàpp nañ ne mën nañ koo am parweer lu mën a nekk la waaye ngir mu nekk nag faaw kenn ku nekk ci ñun da koy gëm ba noppi di ko gëmloo ku mu am loolu mooy tax ñu man caa àgg te loolu mooy dugg ci communication ak massification ñu amaat beneen défi boo defi boo xam ne jàkkaarloo naag ñun di Touba ca kanam di dogg judd ba tey ji mooy li ñuy wax gestion bu transparente mooy leeral laaj nit ñi lu ñu man di ko def fi ñu xam Touba ca kanam bi muy doog a judd li njëkk li ëppoon ci débat yi ñu daan débat ak di ko waxtaane mooy nañu fexe ba Touba ca kanam doon kuréel bu wóor nañu fexe ba tubaate kanam xel man cee dal loolu nag sant nañ ci yàlla bu baax a baax donte ñoo ngi gën a wéy di ci soññiku di ci soññante ndax lu leer du doy waaye euh, bokkoon na ci bokk na ci xeex bu gën a mag boo xam ne Touba ca kanam moo ngi koy xeex mooy fexe ba alal ji ñu di ko def fu leer nañ ñi di ko toppatoo di ko saytu ba mu leer loolu moo tax euh, am na ay kayit yu ñuy séddale defe naa waa organisation war nañ leen koo jox ñu def ci lenn ci réalisation wu Touba kanam def nañ ci biir benn tableau boo xam ne Touba ca kanam ba mu juddoog léegi ba ci weeru avril bi li mu jot dajale ci xaalis ma ngi ca lim ci dépensé ma ca li des ci compte Touba kanam yi ba ci weeru avril bii mi ngi ci këyit boobu te mi ngi ni ma tiim Touba kanam bi mu tàmbaleeg léegi taxaw gi mu taxaw ginnaaw bi mu doonee mbirum sëriñ bi te ñu yëkkati ko rek fas yéene cee liggéeyal sëriñ bi taxaw gi mu taxaw ci leeral ak saytu ak fexe ba nit ñi am ci moom ak wóolu loolu tax na ci diggante ñeenti at yi ak euh, juróom wala juróom benn weer yi ci topp ñu dajale ci juróomi milliards ak ñeenti téeméer ak ak juróomi téeméeri millions yu manqué tuuti cinq milliards quatre cent quatre-vingt-douze millions cent vingt cent cinquante-deux loolu mooy li nga xam ne Touba ca kanam dajale na ko depuis 2017 ba avril 2021 loolu li ñu ci dépensé nga xam ne génnee nañ ko ci liggéeyal ci sëriñ bi ci dëkk bi toll na ci 4 milliards 577 millions 566 mille 654 loolu mooy réalisation yi ngeen gis yépp Touba ca kanam euh, def ko ci ci biir réalisation yooyu mën nañ cee lim danañ ci lim tuuti donte waxtu bi danañu xot waaye balaa ma ciy ñëw ma wax leen ne kon avril deux mille vingt et li def ci compte Touba kanam mi ngi ci neuf cent quatorze millions cinq cent cinquante sept mille six cent quatre vingt dix ginnaaw bi ñu ci defee réalisation yu tolloo quatre milliards cinq cent te loolu mi ngi ci ñeenti at yi ba weeru avril bi ñu nekk nii loolu nag bu mënee am dafa fekk ne day kéemtaanu ñaari téeméer yu ànd ak pas-pas ñaari téeméer ñëpp xam nañ ne fi jamono toll. xawees naa mën a wax ne solom bareetut waaye ak am solo bu fekkente ne ki koy joxe saxal na ko te bi mu koy joxe mu di ko joxe rek ngir yàlla fas yéene ci liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi bu boobaa ñaari téeméer yu am solo lay doon loolu moo tax ñaari téeméer yooyu mën a jur liggéey bu ama am solo boo xam ne fu waaye mën a toll ci àdduna bi léegi yaa ngi koy bàyyi xel di ko waxtaane rawatina biir Sénégal loolu sax xëy na mooy xaw a duggaale tuuti ci li nga xam ne waroon nañ ko waxtaane jëm ci tubaate kanam naka la mën a nekkee model wala naka la mën a participer ci développement bu Sénégal ndax bi ci njëkk rek mooy koo xam ne li muy joxe bi mu koy joxe da koy joxe ak gëm-gëm ak pas-pas nga xam ne joxewu ko rek di ci xaar buy dellu siwaat ci moom ci saa si li ñu wax retour d'investissement boo xam ne day ñëwaat léegi léegi tooba saxal maama sole déedéet kii joxe ñaari téeméer ci Touba kanam dafa gëm ne sëriñ Touba la koy jox te dafa gëm ne sëriñ bi jaar na ak moom foo xam ne amut keneen ku ko fa mënoon a jaar dafa gëm ne tamit mi ngi yaakaar ci sëñ bi ëllëg loo xam ne yaakaaru ko ci keneen loolu mooy ñaar téeméer yu ànd ak pas-pas loolu am na leneen lu muy wanewaat mooy dëkk bu nekk ku fa dëkk ku ne am na lu la ca war donte yaa ngi joxe li la ci war ci geneen anam ci ay taxe wala impôt wala yeneen anam yoo xam ne bàyyiwoo ci xel. waaye loolu dafay mel ne léeg-léeg day xaw a am distance digganteem ak nit ñi ba duñ ci bàyyeeti xel waaye ci li ñuy wax ne euh, participer ci développement au Sénégal ku sañoon boo jaaree ci tali di ca daw mu wóor na leen tali bii moom yaa ko defar bu duggee ci hôpital di ca fajoo mu wóor na leen hôpital bi yaa ko defar boo boo dee dox guddi dëkk bi leer nañ ñi mu wóor na leen yaa ko yaa ko leeral boo dee naan am ndox mu wóor na ne ndox mii yaa def yi pexe ba jot ci loolu day loo xam ne dafa bokk ci liy dundal nit ndax day day tax nit ki yëg ne moom dara moom dara la am na lu muy tekki day tax nit ki yëg ne moom bokk na day day tax mu yëg boppam ci li nga xam ne moom la nit ñi bokk loolu moo tax model de développement participatif bi nga xam ne Touba ca kanam indi na ko day tax nit ki gën a yëg boppam day tax nit ki gën a xam ne moom mii doon na dara te loolu dafay delluwaat ci njàngaleem sëriñ bi mooy nit ku nekk jàppal ne lii baax yaa ko war a baaxal loolu euh, dafa am fan yi dëkk bu ma dégg ñu ne wala ay dëkk ñu ne la nekk ci ay nit mat nañ treize mille personnes fukki junni nit ak ñett am nañ poste de santé mais dañoo am jafe-jafe ambulance nan lañ mujjee def kenn ku nekk na nga làmb sa poste joxe loo man xaw ma ñaar téeméer lañ ko tudde xaw ma waaye loolu mooy moo dellu tubaate Kanam treize mille personnes bu kenn ku nekk joxe mille francs treize millions la wenn weer nga mën cee jëndal sa bopp ambulance te ambulance boo ko jëndee teg ko bu manifestation amoon doo ko taal doo ci sànniw xeer damay joxe misaal ambulance kenn du ko kenn du ko kenn du ko laal nit ki li nga xam ne moo ko moomal boppam doo wëlbatiku ñaxtuwaat di ko toj donte sax réew mi di fi nekk lépp waa réew mee ko moom waaye ngir wane na nit ki li muy dugal loxoom di ci jàpp loola lay gën a bàyyi xel loola lay gën a fonk loola lay gën toppatoo Touba ca da ngay toog léeg-léeg ba mu yàgg nit woo la ne la yéen waa Touba kanam gis naa seen benn oto bërëb sàngam muy def nangam lu tax loolu moom dafa jàpp ne alal jooju moo ko moom kon bu ko gisee ci bërëb jàpp ne nam fa nekk du yoon da koo war a da koo war a wax loolu li muy tekki mooy nit ki ngir mu mën a jàpp ci développement bu mu mën a doon da caa war a yëg boppam loolu nag mooy model de développement bi nga xam ne Touba kanam indi na ko ci biir réalisation yooyu ñu doon wax xam ngeen ne wàllu jàng ak Touba kanam liggéey bu rëy rëy li ci liggéey xëy na loolu sëñ Saliou Diakhaté dana ci mën a gën a dikk ci yaatal waaye bu ma ko dee tënk rek dama naan lu mat téeméeri daara Touba ca kanam réfectionné na ko lu mat euh, ñaar téeméer ak juróom benn fukki sëriñ daara Touba ca kanam jàppalante naa ñoom ci dolli leen xam-xam ci la liggéey camion vidange Touba ca kanam jënd na ko ngir daara yi waaye fas yéene taxawal baytu zakat boo xam ne képp koo xam ne génne nga ala asaka te bëgg ñu génneel la ko ca anam gi lislaam gën a taamu boo ko joxee bayti zakat boobu dana ko mën a taxawee bala nga ca bëggoon nga am ko la ci lislaam bëggoon ñu am ko ca Touba ca kanam am na projet bu ñu wooyee boolu daara daaray alxuraan yi lim bu baree bari lañ tuuba bu fekkonte ne kër gu togg añ ku nekk wala nga togg reer da nga yekk benn bool jox ko daara ja la gën a jege kenn duutu am jafe-jafey lekk projet boobu Touba ca kanam ubbi na ko di ci woo ñëpp réalisation yi nga xam ne def nañ ko bay ba mu jëm koo tënk ndax waxtu wi day xat Touba bari woon na lool bërëb yoo xam ne bu tawee day taa yi ci gënoon a metti tolloon na ci ñaar fukk li ëpp ci ñaar fukk yooyu Touba ca kanam defar na ko vidéo yi dana leen ko woon amuñu jotug man koo lim ndax temps bi daf ñuy xoj tali bu ñu goudronné ci Touba ca kanam la njëkk a gisee kuréel daayira wala association bu ko defar ren jii defar nañ ci lu tollook cinq virgule cinq kilomètres bu ñu ñëwee ci wàllu wér gu yaram juróom benn bërëbu fajukaay yoo xam ne bu ci nekk am na dayob daanaka centre de santé wala mu ëpp ko ndax modernité ñett noppi na benn ba ma ngay liggéey yeneen ñaari équipé nañ ko ba noppi foofu dinaa fi jaare ne sëriñ Mountakha toujours daf ñuy wax ne nañuy waxtaan di déggoo ak waa gouvernement bi ndax ñun li ñuy def ñoom la waroon waaye ni ko sëñ Abdoulaye moom sëñ bu di waxee ñun dañoo jàpp ne Touba lu fa waay di def ñun nga koy defal ñun taalibe yi sëriñ bi ndax dañoo jàpp ne léppi Touba taalibe yi li war ministère de la santé ministre bi am nañoo moom jataay waxtaan ak moom ngir ñu am collaboration ci wàllu wér-gu-yaram waxtaan woowu mi ngi wéy fi mu ne waaye dinañ jaar fii ñaan leen ñaan ay collaborateur ñu gën koo baral ba li Touba ca kanam bëgg ci bërëbu fajukaay yooyu te mooy ni ñu def ba tabax ko ñu def noonu ba ànd ak ñoom saytu ga ñoom ñu yor paj mi Touba kanam di jàpp ci saytu gi ndax jàpp nañ ne ni ma doon waxee léegi askan wi lépp lu ñu liggéeyee seen bopp wëlbatiku di ko saytul seen bopp ca lañ koy ca la ñuy gën a gisee seen bopp te ca lañ koy gën a waggare ci wàllu wér-gu-yaram Touba ca kanam bëgg naa taxawal mutuel de santé tàmbali nañ cee wax ak directeur CMU ngir ñu am agrement wala autorisation lëkkaloo ceeg ñoom taxal mutuelle de santé boo xam ne dinañ mën a jàppalanteeg waa Touba ci wàllu wéeru yaram ndax mutuelle de santé bu am doole mën naa dem ba daanaka am paj àgg ci gratuité nga xam ne nit daanaka mën naa àgg ci faju te du fay te loolu am na réew yoo xam ne expérimenté nañ ko te réew yi ko expérimenté ñun am nañ lu ñu amut ndax ñun dañoo am Serigne Touba. ba tey ci wàllu liggéeyi Touba te kanam yi bari na. luy tollu juróom-benn camion sapeur pompier ci ndimbalu Italie di ci santaale waa diaspora bu Touba ci kanam ay jàmbaar lañ jébbal nañ ko sapeur pompier ak ambulance yu baree bari wàllu éclairage publique fi mu ne ni ñëw ngi ci 9960 lampadaires yoo xam ne ñu ngi koy monter ci Touba loolu danañ ci profité jaajëfal waa commune bu Touba ci ànd gi ñu ko ànd ak Touba ca kanam jàppale leen ci jaajëfal ci tamit lekk ñi nga xam ne ñoom ñoo yor courant wu dëkk bi mais éclairage domaine de compétence commune la te boobaag léegi ngi ci ànd ak Touba ci kanam ci am na benn corniche boo xam ne lu mat 180 candélabres lañ fa war a monter liggéey bi tàmbali na ña ngi koy installé actuellement diggante corniche bi tàmbalee ci rond point garage Dakar ba ca rond point Ndindi ba ci wàllu social mooy dimbalante tubaat ca kanam léppam social la mais teewul am na commission sociale boo xam ne li ëpp ci koppar yi ñuy dajale ñoom génnewut ci xaalis Touba ca kanam. membre Touba Ca Kanam yi ñoo koy jaayantewaat ngir def ko ndolleen ci liggéey bi bi liggéey bi tàmbaleek léegi liñ ci dimbali ci aw nit toll na ci juróom-ñaari junni nit 7000 personnes ñoo xam ne ñii dañ leen a dimbali ci ay dëkkuwaay donte bareegul loolu am nañ ci yeneen mu yokk ñii ñu dimbali leen ci ab dund ñii ñu dimbali leen ci wàllum paj ñii ñu dimbali leen ci seen yenn yenn yeneen soxla seen yeneen soxla bopp loolu bokk na ci liggéey bu am solo boo xam ne Touba kanam mu ngi koy def ci wàllu ndoxum naan Touba kanam jot na cee jënd lu ëpp juróom-ñaari pompe pompe forage yu mag yi li ñu yóbbu ci ay quartier ci ndox ëpp na ñeent fukki quartier fi mu ne nii may wax ak yéen am na ñaari si citerne yoo xam ne bis bu set ñu ngi xëy nekk biir dëkk ba di may di may quartier yi manqué ndox ndox am na saxaaba yu bu ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ko way juróom jigéen dafa génn àdduna ndax mën na koo saraxel yonent bi ne ko waaw waaw mu ne ko ban sarax moo gën yonent bi ne ko joxe ndox sallallahu alayhi wa sallam kon képp koo xam ne yaa ngi jël saw ñaar téeméer di ko def ci Touba Kanam Touba Kanam di ci jënd ay pompe forage di ci jënd ay tiwo di yàq ndox mi nit ñi di ci naan jàppal ne boo ci yéenee sa way wayjur moo xam mi ngi fi wala mi ngi wala wala wala jiitu na wala yow ci sa bopp yaa ngi def ngeen ji sa raxta loolu yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa kon ngir bañ a guddal foofu sax dinaa fi jaaree wax ne fi mu ne nii am na benn cadre unitaire boo xam ne sañ sëñ Mountakha joxe na ci ndigal sañ Ousmane Mbacké jiite ko ñu ànd ko commune bi ak préfet di liggéey ci jéem a defaraat ndox mi ndax jafe-jafe yi bari na te màggal gu jot mu xaw cee feeñ. kon ngir jéem a tënk kàddu yi dama naan dal Touba ca kanam bokk na ci défi défi yi nga xam ne am na ko te ñu ngi ciy liggéey te yàlla dimbali ñu ba ñu am ci lu baree bari mooy mbooloo mu ànd ba noppi déggoo dëppoo loolu jafe-jafe la ku ne xam ne ne seytaane mi nga xam ne moom la ñu yàlla booleel ci àdduna mu daan suñu noon yàlla ñu ko mbooloo mu nekk dana ko jëm a dugg indi cee xalaat du ma ne amut ci Touba ca kanam ah kay mi ngi ciy am waaye yàlla dañu cee defal tawféex. tawféex ji ci njëkk mooy dañoo am ay kilifa yu mat kilifa yu nekk suñ kanam beneen tawféex bi ci des mooy yàlla dañoo dimbali ci ñu waxtaan ci waxtaan te ay nit li feeg ñi ngi waxtaan réeroo bu am ci seen diggante man nañ koo dindi loolu ci def yi ma doon lim léegi la bokk bokk na ci def yi nga xam ne ci laay jeexale nag mooy fexe ba mbooloo mi nu ñu mën a toll ak dayo bi nu mu mën a toll ak riir mi lu mu bari bari ñu sax dàkk ci li nga xam ne moo taxoon Touba ca kanam jóg mooy pas-pas fas yéene liggéeyal sëriñ bi rek te yàlla tax ndax mboolookat bu baree riir mi bari lu ne mën na caa dugg waaye dafa bokk ci défi yi nga xam ne jamono bu nekk ñoo ngi koy fàttalee mooy lu mën a xew mbooloo mi na doon mbooloom Serigne Touba rek mbooloo mi na am genn kilifa képp mooy Serigne Mountakha moom la ñuy déglu la muy rotal mu jëm ci Touba ca kanam moo di ko jaarale ci sëñ Abibu di ko jaarale ci sëñ ab laat muy agsi ci mbooloo mi ñu koy jëfee lool lii mooy yi nga xam ne mooy yi Touba ca kanam di jànkonteel yi may wax yépp nag. naan ay jafe-jafe la yu ci kanam di jànkoonteel day loo xam ne mooy jafe-jafe yi ñëpp yi am jànkoonteel waaye nag day loo xam ne Touba kanam da koo booleeg nag di dox terewu koo dox te it booy xool sax danga naan moo koy dolli ndax àdduna ci boppam la yàlla moo ñëwut nga jóg ne da ngay liggéeyal yàlla rek lépp daal di teew ci sa kanam mu daal di yomb noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dellu di gërëmaat soxna yi nga xam ne seenu teewaay ci jataay bii boo ko doon xayma da nga naan. bu saal bi doon junni nit juróom-ñetti téeméer yi ñoom la jërë ngeen jëf soxnay Touba kanam wasalaamu